jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaan ci yéen ci jox bopp bi nga ñu jox bopp tey nag ñoo ngi fii ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci ci supporter yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci mbër yi waaye mbokk yi tey ñoo ngi fii bi wasaare dal fi ñaari xale yoo xamante ni nii dañoo bokk ci làmb mbokk yi ñaañi ma dalal kenn ki moo ngi woowee Parcelles kenn ki moo ngi woowee Fass sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni nii mooy Modou Feugeula su ma nee Modou la nag xel yi dem ci la muy rakk ci la waaye sama gos mbokk yi maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy tekki jël daan ñu koy wax lan fobee sa menacé saale waale yaale <laughs> mbokk yi gis ngeen noonu noonu noonu lay demee tey maa ngi fi dalal ñaari xale yi bëgg waxtaan ñoom mbokk yi ci làmb ndax xale yi nekk nañ xale yoo xamante ni kii bi mu mujjee arène nationale da jëlee ki nga xamante ni mooy defet am ci defet Modou la moo ngi mujjee bëri am ci victoire waaye combat dafa nekk combat boo xamante ni mën naa ne xale yi bëgg nañ ko waaye kii di nga xamante ni mooy fëgg di magu euh, Modou fëgg la moo gën a bëgg combat bi ndax euh, waxtaan nañ ci lu bay bay mënu sañoon teq jël bëri ki nga xamante ni mooy Modou fëgg la ndax gis naa ne xale la boo xamante ni day neexal komba te xale la boo xamante ni dafa am coow ma bàyyi Modou fëgg la mu dugg si nuyoo ñu wéel waxtaan wi Modou fëgg la nuyu naa la. waaw maa lay fay. ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si bi sant suñu ñaari waajur di sant ñu fi fekk ñëpp di sant sama pour l'instant di toog yëpp di leen bëggee bu baax a baax a baax. kii nee du ndax du sama continuer nuyoo waaw maa ngi ñëw ci loolu. di sant waa Fass Mbao bu baax a baax a baax a baax li ko dalee post caaray jàmm gën si kaab Mbao di bëggee ñëpp daal di bëggee ñëpp rawatina waa Fass Mbao di nuyu monsieur le maire Ndofène di nuyu Pape Gueye. du nuyu Zal Diir bu baax a baax a baax a baax di nuyu Daouda Saltige di nuyu Omar Bass bu sëñ Saliou di nuyu per Niang di nuyu per Niang bu baax a baax a baax a baax di sant sama mbokk yi nekk Diofior di nuyu ñëpp di nuyu waa Joal waa Ndios mun di nuyu tund waalo bi yëpp di ko dalee ñiit baraar gànket boqal séer kër Mama Sarr maa ngi nuyu ñëpp ku ne sa tur ak sa sant na leen seen rak seen doom moo di nuyu bu baax a baax a baax a baax wasalaam teex nuyu naa la aousimilahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wala xawla wala xuwata illa billahi al azim ginnaaw ma sante yàlla jur ci yonent bi maa ngi sant sumay ñaari waajur particulièrement suma yaay xam nga waaw di ñaan suma papa fi mu tëdd suuf Tuuba woyof ci kawam di sant suma sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di wax jërëjëfee Baye Niass di wax jërëjëfee Baye Niass Baye Niass ala kulli haal di nuyu champion yi ma fekk xam nga ak ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di la nuyoo Ousin borom wasaare di nuyu aduna waa di wax seen moo papa teexu teexu aduna bi la waa di char waa Casamance waa Gambie waa Noto Bono Kayar waa Thiès waa parcelle 1 ba 26 ak mafia waaw yaa ma gën a xam bu sarayoon ñaa bu teexi jël daan bi ñëpp daal borom rakiste ménacé fobeere saale wala yàlla wala am sa mburog bër mais loolu mooy lan <laughs> waaw loolu comme ni ma xale di fooyee rek comme ni ko ñeneen di baxee rek waaw man pare woon naa samay gars waaw doyul non loolu dafa neex. waaw ah, loolu dafa fees. <laughs> mu ngi xel kay. mais téex téex lan mooy lan mooy mu téex jël. téex jël daan waaw loolu nag. ajal micro bi tuuti. promotion boobu xam nga. écurie Zoss fa laa jàngee bëree fa laa fooyee xam ko defee. waaw Zoss mu tuddee téex jël daan ak bébé sax mën naa ne Alay Sall. Mhm, Sall ngaay. Sall waaw may profité di nuyu seen waa Gale. parce que yàlla dogal na man. ngeemboo ma suma suñu kër quoi seen kër laay ngeemboo muy kër ñoom Omar saar mhm. mu nekk grand bu bien xam nga sax suma combat da ci taxaw xam nga di nuyuwaale Khady ay Aïda Diallo ñoom ñëpp ñooy togg añi ñooy def lépp xam la waaw jooyu ma dara daal am na fu ma boox foo xam tey jii bu may bëre suma papa bu doon may bëre. Mhm. sama waaw si Omar Fouti mooy suma mu daan nëbb sama papa bu bëre bi même su ma sax ci làmb su ma ñëwee dama koy nëbb paa bi xam nga waaw yàlla def di ko ñaanal waaw fa mu jëm gën a ko fi mu jógee daal mu teel a génn àdduna man nag bon mën naa ne tey yarluwaan laa abo ah tey sama papa yaru ma suma tam suma ma yar et tout ma ci ay loxoom daal mais suma yaay moom bëgg na làmb ji xam nga di wax thank you maama merci maman jaaraama nee ne jërëjëf yaay booy suma xarit suma àdduna suma lépp ma yàlla bëggee na ma boole na ma bàyyi ak moom ba lépp sunu luy ci moom ci kattanu yàlla sunu moroom yeggale ko ak mbëri fi nekk yëpp yéene bi nga am seen waajur suñu borom moo tali ko xam waaw yàlla baax na daal. Mhm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax mbër moo ci gis bu nekk danaan sama yaay laa bëgg a tëral yàlla na yàlla may wala boog yàlla ñu yàlla may lu ñu tëralee suñu yaay yi. Modou Feugeula su ma nee Modou Feugeula moom ñëpp dañuy xam ne rek la ci la mais lan moo tax tuddewoo sa bopp beneen bër nga jël Feugeula tuddee ko sa bopp. waaw Modou Feugeula bi tur la bu ma dab la parce Modou yi dañ fa bëri woon. ok moo tax suma benn patron moo ko dàkkantaal ak Modou moo Modou Feugeleu bi waaw moo tax garage bi boo nee Modou Feugeleu rek ñu xam ban Modou nga wax loolu moo waral Modou dugal ci làmb parce que gis nañ kii di sa mag di Feugeleu doon na bëre. Mm-hmm. kam ki sa mag ki topp ci yow wala boo ki topp ci Feugeleu doon na bëre ñu koy wax daaw 210. Mm-hmm. lan moo waral loolu ndax làmb di méttee yi ñett ñëpp ngeen ñëw dugg ci làmb lan moo waral loolu. waaw dëgg la làmb metti na. Mm-hmm. di nuyu suma mag au passage fëgg la borom États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. moom moom daa daw laa ji moom bàyyi na. non dawul làmb ji sax bàyyiwul mu ngi ñëw. ma benn mbër mu ne ko ba xam da ngaa bàyyi mu ne ma ñi bàyyi bàyyi nañ dañ ko waxagul. <laughs> dañ ko waxagul moos <laughs> non mais moom bàyyiwul. moom bàyyiwul wax dëgg yàlla mu ngi ci bu baax a baax a baax sa guddi daf may waapel vidéo mu nekk si salle di dóor lu metti naan ma gis ne ni ma toll munoo ko toll nangam nangam lépp rek pour bëgg ma jaar ci ay tànkam te incha allah rabi ci tànkam laay jaar waaw ci yoon boobu laa nekk lu tax ma nekk mbër tamit xëy na ñi koy daan mënuñu ko xëy na des fois gëm-gëmam ak sañ-sañam mooy tax ñi koy daan loolu moo tax ma fipp nag carrément kat ñiy daan sama grand mënuñu ko daan man. moom mi naan mënoo toll ni man. Mhm. ñu jàpp ko di ko daan yow nga bëgg a kaas loolu naan mënuñu ko. waaw moom fi la débuté fëgale ba muy daan ay dolfu ay soose bu faas boobu ñëw fëgale fuuf ba muy daan ay malal njaay ñëw fëgale fuuf ak euh, Birame 2 ñoo ko fëgal ñu bëri moom da cee dal moom Birame 2 moom dal yaa ngi tuub laa wax dafa ay tànkam téere tànk bi mu kii dal yaa ngi tuub eh, làmb déggalu ma loo ci sàgganee sa morom jël ko loo ci sàgganee sa morom jël ko biir géew amatul looy def li ngay def def ko kër ga ñëw toog ñëw làmb jë bëree la fa indi mais ay defar téere indiwu la fa boo amee lu lay sonal bàyyi ko sa kër nga ñëw bëre si maa ngi koy nuyu baax a baax a baax di ko sant nan ko aw ma fayam daal aw ma fayam parce que tamit nit ku la jël teggil la lépp sa aduna na la santuma la dara dara dara dara amul lu ma la sant ci àdduna lu dul lan tëdd lekk ba suur dem entraînement yi loolu laa la sant chaque weer cent mille francs la may yónnee barki Seydina Mohamed chaque weer cent mille francs sama poos lu ma neex laa ciy def des fois sax mu ñëw ma may ko yenn yaay boo yi comme am baale ma la comme kooku aw ma fayam te maa gën a neex ci kër gi am naa ay mag comme Daouda Sandis dafa la ko loolu sama beneen mag Pape Touré dafa la ko loolu comme man seul la jël féete woo ma

dañuy jéem rek ma ñëw ci Tekki Jël Tekki euh, ñaata combat nga jot def bi nga duggee ci làmb ak léegi. duggee ci làmb léegi waa léegi may profité di nuyu waa Cité Fadia. Mhm. waa Cité Fadia sama place fa nekk waa mafia cyber game bi xam nga. di siyaar Mangor Jessaaka ajal micro tuuti. di siyaar Mangor Jessaaka sama doom day njool mi. Mhm. xam nga ñoom Fallou Pata sama Ndaw ñoom Lamine Baye Cheikh xam nga Habib Yengs. waaw ndaamal maa ngi koy bu baax baax yàq maa ko tuddee yàgg waaw mooy loolu. DGRP moo DGRP moo génn fii sallallahu alayhi wa sallam bi ah mu ñun day taalibe Cheikh Ibrahim mm-hmm. wa sallam xam nga waaw ginnaaw màggal ci mawlud bi lañ jëm mais di ñaanal tamit ñëpp suñu borom teg leen yoonu jàmm ndax ki ku ne xam na ne Cheikh Ahmadou Bamba lislaam la demaloon géej kon képp wa ashhadu anna da nga ko war a waaw dem màggal yi ci kàttanu yàlla xam la mm-hmm. di ñaanal ñiy dem suñu borom teg leen ci yoonu jàmm ñu dem màggal ci jàmm ñëwaat demaat gàmmu ji Sénégal dafa neex li ñu yàlla mooy mooy mooy ko kenn waa di ziar waa Boukounta Ndiassane waa waa waa Cambérène xam nga waa Layeen waa ñëpp daal xam nga waaw yaa ma gën a xam bu ma juum bu lim da naa ne doomu nday géwél la ndax sant ñaan ak wayaan moom ci la fekk baax ñaata combat nga laa def ñaata victoire cinq victoire deux défaites ah, dafa mel ni dafa mel ni juum ma ci ci ci combinaison bi ma def de ndax quatre combat quatre victoire sept combats cinq victoires deux défaites. ñu def ay xale lañ ay ndaw lañ di bëree mais moom dama bëgg mu xam bu ñëwagum ci moom bu ñëwagum non xaaral fa non xaaral ma teg ci moom quoi parce nii ku ci nekk tey xam ñu bëree bu ñu bëreewul léegi dañuy bëree bu ñu bëree ci kanam dañuy bëree bu ñu bëree après dañuy bëree parce que day tax sër mooy tax sër. Mhm. xam nga kan la fay kan la kan la ma làmb boolewul sa caméraman yi ak yow mi toog sa chaise parce que taxoo làmb te taxoo ngemb xam duggoo ci làmb bëree woo mais képp kuy tax ngemb rek mën ngaa bëree ku ne Modou Lo ko waxoon di nga dem ba bëree bombardier ñu la noonu Balla Gaye ko loo waxoon na dem bay bëree Yékini nga ne noonu mhm. xam la parce que carrière yi sutante na lu sori amee dégg mais bu ma jaxasee àdduna di wax ay waxuma ko damaa laaj fëgal la sànq laaju ma la ma du ma laaj benn mbër yaa ma dégg li mbër di daj moom laay daj damay xëyee di wuti doole ko mbëri ni ñu xëyee di wuti doole day xaar ñu jox ma avance ma préparé comme ni mbër yi préparé amee dégg kon damay nawloo mbër damay jox cër mbër aussi xam ni du mbër yi daj te mbër tamit du bopp leen moo koy jur di sandaat suñu yaay bu baax képp ku jur mbër rek xam nga waaw mooy loolu quoi yombul yombul yomb parce que tu ne tey mais mais mais da ngay ñëw ci comme que comme que da nga maa dog da ngay ñëw ci moom parce que damaa dégg léegi nga ne bu mu la jaxase ak àdduna moom li mu wax mooy nee na xamula moom da ne da ne xamul waaw déglu ma rek da nga ma ko déglu ma da nga ma ko laaj waaw may la kii xaw ma ko mhm. xam la mais xam naa ay magam. waaw xam nga ne ko Daaro Sandis xam naa ko xam naa la moom mu ñëw la contre ñëw beneen sens nii ay ñi ñi daan Feugeula ak ñi laaj Feugeula man mosuma laaj Feugeula. yaa may dégg. non moom li nga wax da ne xaw ma ci kaw. moom xaw ma ko. laaj ko ba xam comprendre la bu ma nee xaw ma ko. ci la tëb na moom Daaro Sandis laa xam ak Feugeula. ma ne ko Daaro xoolu la mu ne ma du maag Daaro est-ce que du Feugeula foofu la débat bi commencé ko waaw. Mhm. foofu la débat bi commencé loolu am na ci droit moo tax ma ne ko doo yàgg fëgg la kii xoolu ma ko sax man may fëgg la déggoo li ma la xanaa kii man xoolu ko sax laa la wax nee na man dafa am lu tax ma dugg ci làmb moom ma dugal ci làmb laa la wax pour classe am di neleeku ci fëgg ay classe u yooyu di topp fëgg la bu dul jeex yéen yéen a tax ma ñëw ak ak maam noo rekil parce que période maam moom surtout moom période bi muy toog di neleeku parce que ku xam làmb fàttali ko tamit topp na ci fëgal di ko laaj. dem fekk fëgal taxaw mu koy tëkku di daw ba far daanu exego du làmb du dara comme loolu rek defeet la. comme naa baax classe googu ñoo ma tax dugg ci làmb mais wax dëgg yàlla opté amoon sax doon mbër maa woon ci beneen métier di choisir di choisir leneen. comme naa baax mais wan leen ni dàquñu ma ko te mënu ñoom rek mënuñu làmb làmb papa kenn moomu ko. ku ci ñàkk jariñu la. te ñoom li ma leen wax ñoom dañ ko gis si kanam. mais fi mu toll nii ku la andiloon avance jël est-ce que duñ ko jël. ku dul non téq laa wax moom keneen nekk fi téq fi nekk. dégg nga dama tey dafa am lu ma fi indi. Hmm. am na association bu may dégg fan yi association mbëri booy booy mbëri yooyu noonu. am na ñetti association. dégg ma la soxla. benn bi ñoom Yurubodoo ñoo ko jiite. waaw beneen bi ñoom Kona ñoo ko jiite. ak ñoom mobile. waaw ak ñoom Onde beneen bi ñoom Sibor ñoo ko jiite. Mm-hmm. ñoom Alliance Balde ak Jamaïcain ñoom ñoo jiite. bu ñoom Alliance Balde boobu ñoom Alliance Biram boobu. ak bu ñoom Onde le Fou bi. association yooyu yëpp bu ñu rangoon nii man a ñoom ñëpp mbër yëpp rang nii nii nii nii ma ak ñoom guddi ma fanaan leen daan ba bër ñoom ñëpp. léegi la moroom nga taamu leen ci ne. non dafa am fu ma ko teg dafa fu ma ko teg parce que en fait lamb du ay association ak ay whatsapp groupe whatsapp man groupe whatsapp bu ñu ma dugal ma quitté parce que soxlawu ma xaritu mbër bëgguma am xaritu mbër. comprendre baax la ma la wax li ñu seex mooy leen ay jullit bu buñ dajee nañ nuyoo bu weesoo loolu seexuma ak mbër aw ma mbër ak xarit lamb la ñu wax. Hmm. boo ma jeekoo loo mën danga ma koy def pour daan ma ko bu ma du ma mooy ñoom ñëpp. séquma ak moom jàmm ndax ki ngay jàkkaarloo di dóorante ak moom dóor moom du jàmm du jàmm barke Serigne Touba du jàmm bul xam lu ñu lay def ci bu yeesoo daaw da sànni sax la suñu waa écrit sax mooy loolu aw ma xaritu mbër barke Serigne Touba du caaxaan ça va yaramam daa tàng de may booy bi koof kii bu yaramam tàngee ñoo ko gën a tàng yëram téeméeri junni yoon barke Seexu Tijaan kii bu dee siritu mbërën ci moom draxu mbër la man aw ma ma. ajal micro bi ma sax maamu mbër. moo tax bokkoo ci làmb nag. aw lan bokkuma ci làmb. looloo tax bokkoo ci làmb déggoo ma la xanaa. yow bu ñu fuddee amoo siritu mbër amoo <laughs> deretu mbër. xeexee ma duma bu ñu bëree ma daan la te leer na ma ne am naa yaqin ni barki Seexu Tijaan liy daw sama yaram bii ci xeetu yëg mbër yow seetal nga may saat mm-hmm. gis nga ma takk jaaj yi tuur bëree dem saaga yaakam day xeex la baax rek saaga yaakam xeex la ak yow du ma sa morom nit du tagg boppam xamul tax xamul tax fee lañ toog di waxtaan moo saw mbër champion ba la toog ñuy waxtaan kee sax da koy dugg na ko mm-hmm, rek muy ratatati rek nit du tagg boppam nit da ngay bàyyi nit tagg la mais barki seen naam xam ne lan nga bëgg a dafa bari wax dafa dafa bari wax te nit doo tagg sa bopp nit doo tagg sa bopp nit da ngay bàyyi nga def dara ñu ne diw yaa def lii yaa def lii yaa mais liñ toog yëpp barki Serigne Touba maa daan kii maa daan kee maa def nii maa bëre maa daanu boobu a tiital moo tax non kooku day xaar man bu dee man ak man rek na xelam dal day xaar dégg waxuma ci loolu sax mbëroo wax dañoo bokk journée bëre yaa man bëgguma naa ma ngay wax fii wax fii affaire téléphone lañ nekk di wax ñuy wax ci leneen ci affaire laa moom dañoo bëggoon journée quoi yaa ma dégg ku loo xaq wala wax dëgg doon moom yi a neex naar féeq quoi parce que mu tax moom débat wu moon ci calculé wu ma lu mu nekk quoi da ngay maandu mais boobu rek yàlla moo ñu sàkk te moo ñu gën a maandu mhm. doomu man du ma ragal doomu aadama boo namee ragal doomu aadama jël watal sa bopp nga jeex sa bopp même adam ndeel même ndeel mooy doomu aadama kon doomu aadama mënu toon ragal doomu di am lu muy lijjanti man loolu doomu aadama lijjantiwu ma kii maamu ah. bëriwuñu du ma moroomam déglu ma du ma kii a rey kii dama at kii dama attan waaye bu tax ma rey nit waaye ñu gën ay mbëru yoof rek la fi lim ñu tëj ko 15 ans moom xam ne saamu yab saamu yaboy bu yoof ko mën foofu xaw ma ko saamu yaboy saamu yaboy la gën a diis moo la mën kii jaxasoo ma ko arno de mais dama ne dañoo toog muy wax ay mbër comprends baale ma la maa mën kii ba lay jaxasoo ma a àdduna na déglu baax le ma ko wax dama ne ko nit doo tagg sa bopp maa mën kii wala maa def lii wala maa def laa li nekk ci boppam moom lay génne li nga xamante ni moom lay dara nekkul ci boppam déglu ma la wax dara nekkul ci wax sànq nee na association yi bu ñu leen lalee bu ñu rangee bu ñu rangee ñoom ñëpp du ma ci dellu ginnaaw de eh, eh bokkuma ci association bi de bokkuma ci groupe whatsapp mais wallahi azim bu ñu ma duggoon ci benn groupe whatsapp ma wax loolu aw ma lu ma ciy ragal. yaa leen mën ñoom ñoom association bu ñaari association nga ma limal noonu. barki Serigne Touba bu ñu rangee ñoom ñoom ma fanaan leen daan. waaw léegi ba bër set. bu bëggee ma commencé ko ci moom na jël avance. mburoog bër sa yaa la mburoog bër dafa gaaw a du lekk mbër. yow da ma fii bu dee dëgg la daal. dama leen di boole dama leen di xuuxaan tekki tuba bëgg a bëreeg nit bu mu tax ngay nekk ay. parce que moom mii moom mosala déglu ma moom. léegi man kon aw ma droit ne maa mën diw damaa juum mu daan ma. Hmm. moom mi mën na rang mën na mën na rangale ñaar ñetti association la wax. ñaar xam nga kii wérul an kam silandi an kaa kanga wadu mawru. xam nga tax ma wax loolu. man dama gëm sama bopp am fu ma ko teg léegi ñaari association laa la wax man maa ko wax man personnel Modou Feuguela wax yaa ngi dégg man Modou Feuguela personnel man maa ko wax ñaari association yi ma fanaan ko wax samay ma xaw ma ko sax bu ñu ma laaj sax dama ne benn raxu fëla xamoo ma nga ne mën xaw ma la nga ne yaa mën. mais su la jàppee daan la. du ma sa morom sax kii dafa neex. du ma sa morom dégg nga neex. waaw léegi jëlal avance bi du ma sa morom booy jëlal avance bi. du jël moom mii ñoo ngi koy bëree yow ma bëgg la jël may ma sax. barki Serigne Touba man musuma bëre ñu mbër gis ko. stade laay dugg tak too ko gis mbër bi soxlawu ma la xam soxlawu ma xam sa tur soxlawu ma xam sa dara nañ jàkkaaroo làmb ja rek nga xool. mais kii bi nga ko gisee. bi nga ko waaw. xam ne yéen jii yéen laa dajale fii. Mhm. lan nga xalaat ci moom. non kii ba ma ko gisee xaw ma sax ba xam moom laay defal émission noonu moom moom moo wax téléphone. moom moo wax téléphone. Mhm. ba ne rakk fëgale bi. ci laa soo jàpp ne benn comédien lañ ma booleel fii nii. comme naa baale ma la wax. naan ma ay set ay set combat. mais li ma bëgg a xam mooy lan moo tax doo seetaan làmb. lan moo tax du ma seetaan làmb. parce que bëgguma di bàyyi mbër xel. comme maanaam jël sama xel rek daf ko ci benn mbër nii nii nii déedéet làmb du jël mbër daf ko xel wala cité mbër ba pare soog koy jël yooyu noonu man nekkuma ci loolu man damay nekk sama liggéey. comme baax la ma wax wallaahi azim su ma duggee YouTube di seetaan làmb nii nii nii bu weesoo sama combat man parce que danaa xool fët yi ma fa def doog a daan danaa xool fi ñu ma yegg ma soog a daan. Mhm. lu ci ëpp loolu laa xool bu weesoo loolu li simple laay dugg di seetaan. parce que keroog dafa ne am benn adversaire bu la doon proposé. Mhm. mais moom moo la wax dafa teel ci yow. Mhm. parce que kooku moo la gën a diis wala moo la jiitu ci làmb. Mhm. yow nga pare woon nga pour jël ko mais moom moo bañ combat bi. cela la doon proposé yow xamuloo ko. non wallaahi man naa la man personnel pour muy leer man nañ ma jox sa benn vidéo làmb rek ma xool la li des soxlawu ma ko ba ma ko envoyé tag sama mag bi sax la ko envoyé man aw ma bañ ko sax aw ma téléphone whatsapp soxlawu ko. comme naa baale ma la wax. mu wax ma jël sama téléphone mag bi vocal ko na ko jëlal combat bi mu a ma dafa diis ak nii ak nii nii ma ne ko tànk bi muy teg arrangé na ma loolu laa mujjee wax ak moom pare ci ba mu toogee si ngeen kale émission bi man di émission bi sax yëgu ma ko woon si si ak moom mu ne ma dama nga wuy loolu laa ci am nee la aw ma leneen lu may def fëgale lépp lu mu dugg suba ba ngoon ma ci dugal comment baax le ma la wax mais bu desee ma taxaw pour jàkkaarloog booy yi si biir géew bi rek fëgale lu muy wax bu ma wooyee sax damay damay déranger lim soxla ma sax mu woo bu ma woowee man daf may déranger seen beneen élément bi ngeen koy laaj kooku xam na baax li ma koy wax. jiili bàyyi jiili moom moom moom xam bu baax. moo fëgg a woowee damay déranger na ma li mu bëgg ma defal ko ko muy lan ma daan ko jiili envoyé ko vidéo yi loolu laa seex ak moom. <laughs> teex kii na dafa gëm boppam man looloo xam nga man kii comédien xam sa bopp xam nga man damaa bëgg loolu xam nga mbër la booy li muy wax ñoo ëpp sañ-sañ fuuf kii ñi ma daan mënu leen a daan kii bu ñu tëjoon ci pantere waxuma la fu yaatu de ci salle de. téema a dugal fee pantere bu ñu fa dugalee nañ ko commencé. foo mu ubbee fekk ma ah, la dugg barki démb ci làmb a dafa am lu ko waral. nee la nekk ma woon mbër su ma doon mbër dépassé naa fi bu yàgg. fëgala moo ma kale woon parce comme li nga wax sànq Daouda Sandwich mënut a nekk suñu kër nekk mbër fëgal a nekk mbër fëgal a dëgg bokkuñ famille mais suñu famille la nekkoon suñu biir kër. Mhm. comme naa baax la ma ñoom ñett xale ne ma yow da ngay xaar. Mhm. loolu moom ma baaree ci làmb bii nii nii nii nii nii waroon na fekk ma baax la ma la wax mais moom nekkul woon pour man ma bëre loolu moo ma baare woon mais moom tout ou tard xam na ni Modou mi champion lay doon ci làmb far force la moom xam na ko moo tax mu teel a teggi lu bari sama gaw parce da doon toog ba tiit

Tekk est-ce que bu la woon andil la avance seen seen comédie show am na fa place na nga waaw non dama ne est-ce laa jëlee mbër nga am ëdëb am yar non mais nag mais nag mais nag mais ratata kii xam ne man kii man lu xooluma ko am na leen ne suma kanam lu may laaj mais na ku def 4 combats 4 victoires bàyyiwul ci booy kii mënu ma bañ kii mënu ma bañ barki Serigne Touba mënu ma bañ tey pour muy leer boo bëggee dégg dëgg boo bëggee dégg dëgg ah. te réparé sama avance dañ ko yóbbul mu bañ réparé raqu marle bu marché bees xam naa bu baax sama avance dañ ko yóbbul mu delloo ko comme naa bu baax li ma wax réparé moo daan mu ne moom moo mën mu ne yow yow nga ne yaa mën yow te réparé moo daan déglu ma rek kii réparé ñooñu man waxuma ci loolu quoi na booy tuddaat da nga may indiwaat da nga may dungaat combat mais yaa moom xoolatuma li ñu passé de. yaa ci du suma kanam lay xool maa moom ñoo fi nekk mais du suma adversaire. xëy na adversaire pour quelle pour quelle raison. non Daouda sans ñu bëree boo bëggee combat bu neex. Daouda xoolu la wala dégg li ma la wala fëgal a jógee dégg ma wala fëgal a jógee états ah, moom moom mooy ñëgloo man du ma laaj mbër. wala fëgal a mi ko bëgg na jógee États ëpp ko tur kenn ëpp ko a léegi d'accord a mu ñëw ngeen bëre. waaw ah barki Serigne Touba fëgal mën na ko fay ñu bëre man ak moom bu dee dafa jóg bu fekkee bëgg dafa jóg pour bëre barki Seydina Mohamed bu laajoon un million fëgg a teg ko si taabal maa moom ñu bëre. de pour ma daan ko kese nag. billaay walaay taalaay fëgg la laa day moo tax wax la yow waaw mais moom di laa bëggee mënu laa bëggee bëre ak ñeneen la du bëre ak yow làmb xoolal làmb teg paa xam moom mi moom booy bi dof dof la ma am na foo xam ne dof dof la ma eggu fa bu rëy muy fan xam nga baax li ma lay wax muy fan am na mbëre yoo xam ne doo doo geesu ne da ngay bëre ak ñoom gis nga làmb damay bëre ak ñoom pour muy leer amul gëstu du ma bëri ñoom de man defuma ci laamu dara comme ram baax la ma laax ñoom Modou Lo li fi def ñun dafaguñ ko fi comme duñu bañ kenn yaa ma di baax la ma laax caatu robes dañ ko seeti mu bañ ñoom Bou Siteu ñu bañ ay booy mu lépp doole dañ ma wax yaa may dégg mu lépp doole waaw xaaral ma ñëw muy ma fi ma ñëw yaa may dégg baax la ma laax ñu seeti leen neneen boobu dañu ko ëpp doole ñoom nangu ñu ma jël man rampé naa ñëw si moom moom na jël feneen am bu dee dëgg la loolu la quoi man bañu kenn man bañu benn mbër yaa ngi dégg bàyyi ma la mais moom def sept combat yow su ma demoon bëre jël xam laa lay jëlee du ma fi def de ak barki dem nga fi ñëw xam laa lay jëlee sa laamin bi laay jël tëj ko duma la ci kanam amateur yi ma la daan la rakiste ménagé favéré n'est-ce loxo mooy duma ba doodoo taxaw di di ay ay n'est-ce pas loxo mooy dóore loxo mooy dóore loxo mooy dóore man soxla ma xam tànk booy teg parce que musuma la seetaan nga nga ma seetaan nga ma nga ne xamoo amul mbër bu dugg top 5 bu mbër seetaanu bu dee yaa ngi seetaan bantamba boo ay saabu ay saabu ma morom non dama lay sama combat seetaan sama combat xam ban tànk teg te ay vidéo bi na si man ngan si samay vidéo yegg na ci yow di ko seetaan hmm? dégg ma ne téex bu aduna bi la moo tax voilà dèjà ma kii corrigé na moom sànq xaw ma yaa ngi dégg kii kii dafa dof barki Seexu Tijaan ki wéeru dama doon sànq mu ne moom xamuma gisuma mu may door a gis mais nag nee na rek barki Seydina gis booy pare nga pare yi dama la dafa nang man lu ma wax du dellu ginnaaw wala ma am am ragal man lu ma wax lu ne da nga koy dégloo xel yaa ngi dégg bàyyi ma la wax bëgguma combat daan la bëgg bëgg nga combat ah? indil yàgg daaw la sànni yéen ñaar yéen ñaar kon ma def nekk yàgg moom a bëri ba ko daanee dem ci daaw la sànni. waaw dégg nga boobu day loolu day metti loolu day metti jëlal bi essayé. da ngay rek bu làmbatu de essayé bu neexee mu doole mais du doole. da doon neex sax demee waxtaan ak ñaari mbër waxtaan ak ñoom seen carrière bu dul bu bu dul teq jël kan kan nga mën on le fou mu fi. bébé bis mu ngi fi. dof bi faj nit ñi. déggoo li ma la ñoom ñëpp amul ku ma ci taxaw na la ngir yàlla nañ bëre parce que ñoo ma jiitu ci làmb mais ku ci nekk ba ci agogo fekk naa ko stade na ko grand ngir yàlla may ma chance ma daan la man man même boo may rey dama lay wax sama soxla boo may rey dama wax sama soxla a ko téye na ko gan grand mu ne ma chance ma daan la ci kanam idaali ñi nga aw ma lu may ragal man ku ma bëgg a bëréew lay taxaw wax la sama soxla garaawul yaa ngi ñëw de ku ma bëgg a bëral. moo la wax sama soxla nga dégg xamul kenn. ñoom ñëpp yow budul budul budul Modou Feugueux la sa diggante kana kana kana kana kana. man moom nga naan kii daf ma am fu ma kii ak nangam ay boobu nangu sita nag di jël avance. kii du ma laaj kenn man jaamu gën su ma fa doon bëreel laa wax. ay sira laa fa war a ki dëkk jaamu gën Fass Mbao. côté boobu yëpp benn la jaamu. Eh, benn la foofu benn la kii dafa neex mu naan sita ay laa fay bëreel ay ay maama Lamine sax xooluma ko ay Abu Ndiasse consort boobu dem sama yoon raatat man xaw ma gëw ma ay tarkinda ak ay curkinda ak ay tirbinda ak ay ay xam la laa gëm ah? xam la laa gëm fakka tën te man fakka tën laa mooy dëgg-dëgg jàmbaar gëw ma yooyu ñuy gëm ni li yoole yoole man affaire yii nii dama ko waaye yéen da a baax rek egguma fi wala egguma fi yii parce que si yow Tidiane. waaw léegi dégg ma la wax bu arbitre ne woon prix bi la da nga ne pied bi du fekk ginnaaw tax ngeen. yaa ma jiitu ci la ma la wax. Eh, dama ne la arrière erkaat <laughs> yi. erkaat yi yëpp a toj man ma dóor. xeexkat dëgg dëgg la xeexkat yëpp ay xeer lañ ma dóor yëpp ay xeer lañ ma tiim di ma dóor man ragalu ma xeex. lan mooy xeex sa garde baaxul moo tax muy dugg. lan mooy xeex. sa garde baaxul sa waay day xeex sa garde baaxul gis na suma kanam allah dama ne la eh, waa léegi dama la laaj ngir yàlla war a suuri la bandi dëgg day nice am doole mën li muy def du tiit mukk bandi ñu ngi leen di dégg bandi du wax bandi laa de la bandi bandi du wax bandi laa du ma bandi ne da nga ne bandi dëgg bul bul teer bu ragal li nga wax da nga ne bandi dëgg nga wax voilà déedéet ba non li ma bëgg laa la wax de man bandi bandi wu ma de te yow li nga am ni dafa sedd barki Sëriñ Tuubaa li nga am dafa sedd balaa nga xam li nga am ni dafa sedd rek

parce que fii maa ngi fi ñëw. yàlla daf ñu daje fa man ak moom. comme naa baale ma mu def sept sept combats la def deux cinq victoires dama ko bëgg a daan. Hmm. parce que bëri na sept combats dégg nga lu ma la dama yokk défaite yokk samay victoire def na sept combats quatre combats la def sama cinquième victoire ci moom laa ko bëgg a def. booy. am naa droit. booy barki Seydina Mohamed bu mu jële ma daan la. barki Salatul Fatiha. billaahi wallaahi taalaahi bu ma jëlee ma daan barki rasulullah non du du lenn man amul samay morom bu taxaw sama kanam ma naan la lii ak laa samay morom nag laa wax dañuy toog fii di wax nga a ne la bu ma fanaanoo ma la daan la duma sa morom sax sa lamine ak sa waar yi moo tax ma lay ma lay corriger mais maa du làmb. dégg nga ah daan la yàqul sama yoon dara ñaax laa jël yàqul sama yoon dara yow mënoon bëree yow sax jarul may tax a gàllaaj kii dama koy duma bu mu tëdd jarul ma dem fenn. lan mooy gàllaaj ci làmb. làmb làmb amul gàllaaj xam naa ne fu nga ko teg. làmb amul làmb amul gàllaaj naan ay ay ah, ah, dama ne teex bi nga xamoon démb ak barki démb. dama ne tey tey laa gën a soxor. ndax xam naa ne fi mu toll da ngaa fanaanoog mer. déggoo li ma la tey laa gën a soxor te gis nga kii nii. dama ko guuxal ndax ñooñu xale yàlla barki seen naa xam non dama gis yaa ngi koy xool di ko ñiitaat. billaahi wallaahi taalaahi. Ouzin booy bi tapet moo la ko tey tapet la parce que naa ji xaw ma kii. Ouzin day dem du ma dem li ma gis. yow da ngaa doon te dégg nga bañ taxawee. Hmm. barki rasulaay dañoo daw dama simeeku suñu sama sipar am ñu ñibbi. yaa ngi dégg baale ma la wax boobu boobu xàdd nañ ci combat bi. billaahi wallaahi bëri naa yëmbal drapeau Malick Gakou maa benn mbër bu ñaan tapalapa ñu taxaw génnee ay jaase yu kenn xamul ma leen men boo may tëral ma kay rey émission farankulaay na. ak nu mu a toll dama kon tàggatoo ñu tëj <laughs> dafa kii dafa kontaan quoi. boo yow ku bëri mbeñ mbeñ yow man pour man xoolal. non kii li ma bëgg lenn la rek man nee naa du wax ji de. xam nga lu ma bëgg man léegi kon léegi. kii moo raw sant gërëm tàggatoo pare coow jiwul. non tàggatoo yow wa du question moomee vent rek question moomee vent li ma la sànq laa lay waxaat avance ñu bëri dañ ko nanguwul jël dama dama bëgg a bëri noonu la fa demee sama zone ñëpp a bëri mbër yëpp a bëri barki Serigne Touba sama supporter ba dama ñu stade ndax lan yow la ñuy xaar comme ram baax na ma comme moom foog ma sama soxla mu jël ma ma bégal gars yi ma daan ko sama supporter mën a kii waa yaa ma gën a xam noonu la fa demee Ousseyn day nee day dóore yow ñun ñuy ay dawalkat sare yor ay xiir di dóor chaque jour nee na dóor Papa Sambène la waroon jël bu daanee Papa Papa mu Papa Sambène combat bu neex la Papa Samen la waroon bëree bu daanee Papa Samen am problème may ko loxo. yow daal ngir yàlla ne nga jël avance bu ñu la ma génnee fii léegi su ma génnee léegi tak dinaa am ku ma woo mu woo. ñoom seen sarax. seen sarax la mhm. bu baax li ma wax nee na bu génnee su ma génnee léegi am ku ma woo mu woo la ngir yàlla bul delloo bul delloo avance bi bu ñu la wooyee jël ko nga na wax lu yoonu maa woole na leen carrément jël naa avance wala lu laaj fay nañ bu bëggee fëgg la fay ko ñu bëri ah, taxaw na non man ay boo yu bëri wax. laajal un million déglu ma. la. ñu eh, la fay ko ñu bëri. Ousseyn déggoo ma de. du ma du du ma ne di ah. wax yu bëri man jëf laa gën a mën. non na na na wax bëgg naa ko naka wax la yóbbu ma fenn. waaye léegi wax sa wax ju bëri moo damay la boo paree pare naa am problème. barki Seydina Mohamed boo ma jëlee. teel micro bi teel ma nekkoon quoi. bi ma jógee ci bi ma jógee ci jéggi seen damay taxawaat fi ma nekkoon rek. jëlee ne sa tonnerre da leen daan ay petit ñaar ñoom seen kii daan ma fenn su ma ko daanee damay ñëwaat jaa sama morom bëree te teel micro bu baax daanoo dugg technopole ah. di di di kii nee na bu bu daanee yóbbu ko fenn bu daanoo dugg dugg ci baraxi foofu waaw. Ah, fa ngay dugg dañ lay fàtte. ci <laughs> maanaam bu waxu booy la tombé quoi fa lay ne di wax ay technopole beeg ay dugg ci biir suufu sareet yeeg ay dugg ci gafaga geeg ay détails ngay teg. garaawul wala ci biir kol bi sax nag xañ nga ci biir kol bi dinaa la duma ba ba ba ba ba fëgg la ne bu ma yëgoon lii du ci dugg. ah da nga fàtte ne fëgg day dóore. Ah, da nga baax fëgg da nga fàtte ne fëgg day dóore. da nga fàtte day dóore. waaw bu dee dóore xeex yi bokkul. ah sax dégg li ma la wax. nga fàttali fëgg day dóor laa la wax yow mën nga yow buñ ne la yaa dàq doo raq fëgal di nga gëm yow. di nga gëm. yaa dàq xeex fëgal. yaa dàq xeex fëgal di nga gëm. fëgal maa dàqee foofu. ki ma jàngal boxe jàngalu fëgal a boxe am yoon d'Afrique nga mën temps bi la njëkk a signaler ne mu baraka. waaw di profité di sant waaw suma mu xadam Cheikh Baye bi tey di ñaanal Baye Mbaye Gueye xam nga mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal xalif général bi Cheikh Mahi Ibrahima Niass mu yàgg fi lool ak xalif général yi toog yëpp waa di waaw sant père Abdou Khadir transitaire père Abdou Khadir Ndiaye transitaire borom Maris xam nga père Gora Diagne père Gora agence grand Gora Bébélor Bicha xam nga maam Gora Jazaaka Njool mi sama doom yaay mafia cyber game bi ak képp kuy jàppale teex jël daan misel caatu ëm maa ngi koy nuyoo bu baax a baax di ko wax mis waa jugal gaaw delluwaat sa waar nekkaat yi di nuyu waa xew-xewu làmb di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Cheikh bas mu tasaare ko ci waa xew-xewu làmb yëpp di nuyu sama doom baay Abdou Tall xam nga di nuyu fan si club Jël daan bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo maam Zos mu tasaare ko ñëpp di nuyu Ousmane Diaye Guèye ak képp kuy jàppale Tékk Jël maa lay bégee di leen wax waaw temps bi mooy ñu ko xam nga ku lim tamit da jum wala doo moo tax. wax leen jël nga wax leen jël nga avance bi mooy loolu. na leen wax am nga combat. nabar nee na nga wax ne am nga combat booy bi bëri na wax mais yàlla baax na yàlla yàlla dafa waat nee na ci salaatul fareex lay waat ci nangam mhm. nangam waaw gis ngeen fii pii moo fi jaar sallallahu alayhi wa sallam bi gënuñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun xam nañu baax nu mu demee lu ma gaay woo parce hmm. que Seexu ma gaay woo xam ne gaynde lañu woo dégg lu mu la ma fa Bombardier sax bu ñu ma joxoon avancé. ma kon kay kon kay di ngeen loolu laaj fëgg la day fay. même ah, promoteur maa leen déglu booy xam nga seen borom ay ragal la nii ñëw fi wax mbeñ mbeñ mbeñ toog topp mbër toog ci télé bi télé yi neex xam nga clim bi wër la ngay nefi di taasu champion yi di la xool ngay mbeñ mbeñ ah te boo génnee naan cest à diir man du du moom du lii du gan ci man man du ma gan ci làmb yàgg naa ci lamb yàgg naa Modou tàggatoo la ñuy tëj ba beneen. yee di Ouzin di la siyaar bu baax a baax xam nga ci effort yi nga def pour dajale lii dajale ay nit yombul quoi xam nga. Mm-hmm. di la encouragé ci yoon bi nga nekk ndaw nga xam nga bonne continuation. merci beaucoup wasalaam. Ouzin waaw suñu tàggatoo dina bëri bëriwul. Mm-hmm. di sant waa Thiaw sa xiir bu baax a baax a baax te li maam jaara di leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. naa leen am naa koom combat mën ak téq téq jël xaw ma. téq jël daan téq jël rasu téq <laughs> <laughs> waaw am naa combat man loolu laa jàpp quoi am naa combat man ak téq jël katafi am naa ko di ñaan yàlla yàlla may ma si ndam gu wér a wér a wér a hmm. baax di nuyu pula bu caw sa xiir pen ron asan bu ama balde <laughs> mbay fall di nuyu petit petit caan petit jaane bu faas Modou Pàcc di nuyu waa caw sa xiir yëpp képp kuy dawal foofu saret rek maa lay nuyu Cheikh Diop mañang borom magasin bi ay dawaar may defal ndékki chaque jour ak Roxaya Alaaji Mbay RN Awa Mbay sama jigéen sama xarit bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu képp ku may jàppale su làmb rawatina Omar Bassou sëñ Saliou rawatina Daouda Saltigué rawatina Père Babou di nuyu ñëpp di sant ñëpp daal euh, di nuyu Père Ñang bu baax a baax a baax a baax di nuyu Ahmed Mara Fallou Gassama du nuyu waa comme sànq rek li may wax sànq laay waxaat di nuyu waaw tund waalo bi yëpp di ko dara gànket baraal boxal séer kër Mama Sarr ñiij tund bi yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di sant di sant waa Ndar waa Thiès ngent seen doom am na ko waa di leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax di nuyu waa Tëngéej di nuyu waa Tëngéej ko am a neex di nuyu waa Tëngéej ko ñu Sococim ak jabaram day awa maa leen sant bu baax a baax a baax di sant Maodo Thiaw le grand cofte coffreur Fass Mbao maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax Pape Gueye bu faas ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant gis nañ ñu mu def ci ndox mi dem jënd lu mat 10 machine de pompe te ko Télimam Diarra di évacuer ndox bi comme kooku amuñu fayam ak jabaram roxeya bu baax a baax a baax suñu amee combat mu siy jàpp di sonn ñu ngi koy sant bu baax a di ko gërëm di gërëm sama yaay tégga di gërëm paate suñu kër di gërëm abo di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm ku lu ku ñu jàppale ci làmb rek di gërëm Vieux Dramé Cheikh Tukulóor di gërëm Abdou fay di gërëm Cheikh Omar borom dóoru bi ñu indi nii nii moo jox dóoru ñu indi parce que moom place am la yor Fass Mbao dóoru lu mu pan pan pan boo ko joxee mu dépanne ko comme ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm wës Burkiman ñoom am mécanicien dóoru bàyyiwuñu kenn daal képp ku ñuy jàppale rek ñu ngi lay ah, sant bu baax a baax a di gërëm dawa ko saret ñoom laa waroon njëkkee parce que fa la ñuy yeewoo fa la ñuy ñooy wàccandoo ñooy xëyandoo comprendre baale ma la comme maa leen sant bu baax a baax a baax a baax xam naa ne kii day dóoree su ma yee ne adversaire moom day dóoree comme mu yeewu yaram bi tërgal dinañ gën a rawaat xëy day yeewu yaram bi laa lay wax nii comprendre baale ma la jox ko ci xewar yeeg xasum loo mun naan ndax mu mën a entraîner normal quoi indi forme parce que fee lañ toog ma naan ay damaa yokk poids gars yi d'accord ma wàññi poids gars yi d'accord mu baax du am lay comme naa baale ma la moom moo toog di wax de ba léegi man waxuma dama toog noppi di déglu gi xaw ma farloo be kii day ratatati rek léegi ma comme ngend gi muy wax foofu jaar naa fa sama olof taaxi kaw xam nga këri kaw kaw sara fall ba mën na fall kii moo gën a doon doomu Thiès téeméer yoon muy tepe non man du ma doomu may dégg du ma doomu Thiès Thiès daa ma boole ak ñoom di di di di di siyaar grand Demba boulangerie xam nga nekk Guédiawaye arrêté doo ba léegi li ngeen di xëccoo nii moom ku daan ku nekk war na koo mën a jël. wuy ma fi barki Serigne Touba lenn moo ma fa boole cees li ma fa boole lenn la làmb laa fa dem yóbbu benn booy mu am combat ñu woo ma ma kaay gunge booy bi ma dem jël mataar yóbbu ko làmb ja mu daan ci guddi la ma promoteur fekk gaal na ma kaay ñu tëgal la làmb ñu seeti laay góor mu bañ barki salaatul faatiha du du lépp lañuy wax. dégg li ma la bu dee yor na numéro laay goto na ko woo wallaahi azim man du ma waxantu wal du ma wax di fenn amul ma intérêt. kii Moussa Famoun Daousa du bëre ak moom. xoolal gis ngeen barki Serigne Touba wax lu nekkul ci man. du ma wax lu man toog fii wax loo xam ne du dëgg ñu seetaan ko YouTube ne kii li mu wax ni du dëgg amul ma intérêt. dëgg la bëgg naa ëllëg ñu respecté ma comme ram baale ma la wax. Mm. mais wallaahi dañ ko contacté woo ko tag mu bañ. ñu soo a xool yeneen booy foofu kii dafa baax di. ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo kontaan nañ ci yéen di leen jaajëfal bu baax a baax kontaan naa ci yéen ñaar ñi di leen wax ne combat bi yàlla na taxaw ak jàmm ngeen bëre ko jàmm ak salaam que le meilleur di leen jox dig daje Wassare Lamb bu jàmmaarloo jërë ngeen jëf.